jafe wàllu koom moo gën a euh, fës ci entreprise de presse yi ba tax ña fay liggéeyee nekk ci ay jafe-jafe précarité jeune reporter yooyu nga xam ne dañuy am ay stage yu dul jeex ay salaire wala nañ leen di rémunérer baaxul loolee lépp organisation syndicale yi ñaalu nañu ko. jafe-jafe yooyu wax nañ ko premier mai 2024 wax nañ ko premier mai 2023 wax nañ ko premier mai 2022 wax nañ ko premier mai 2019 bu surtout jafe-jafe. bi jëm ci wàllu payooru journalistes yi ak liggéeykat yi ak ak caméraman yi am na bien entendu 2019 ba léegi am na am na teg nañ fi fond fond d'appui dafa nañ carte de presse xam nga jox nañ ko rek doole euh, jël nañ ay yenn décisions yi loolu baax na kenn du ko xeeb mais li nga xamante ne mooy cëggal guy gi mooy nit ñi xam ni journaliste d'abord c' est pas un maître ci yooyu la jafe-jafe ñu gis ne tamit atub 2023 ak ak yelleefu journaliste yu ci bëri dañu ko salfaañee. mu am euh, ay journalistes yu ñu tëj ay journalistes ak techniciens des médias yu ñu tëj loolu aussi recule bu mag a mag la euh, rax si dolli suñu ministre de la communication wala TDSA bu nga xam ne moom mooy diffuser télévision yi. am sañ-sañ en violation même des lois très répressives qui existent au Sénégal ñu ne dañuy couper signal couper nañu fi signal euh, Sen TV couper nañu fi signal euh, euh, donc Walf moom mi xelam màcc ci wàllu xibaar dal di sàkku ci nguur gi mu dal di jëmal disposition réglementaire yi bàyyee ko ci OWADA. comme nag patron de presse yi ñu ngi wër naan entreprise sénégalaise dañoo nekk en neta de quasi faillite nañu appliqué disposition OWADA yi bu boobaa dinañ xam ku fayit ak ku fayitul ku war a respecté ay obligations ak ku ko.